Donc, euh, Monsieur Camara visite inopinée auprès je ne crois pas. C'est à la CICAP et je suis de la CICAP. Aujourd'hui, il y a 48 heures que je viens d'être élu maire de la CICAP. Normal que je, je, je sois présent. Maintenant, rien que le fan zone mérite des félicitations à l'endroit de, moi, de ma sœur Zahra Maintenant, c'est l'occasion aussi de présenter euh, on était venu présenter à, côté les condoléances donc c'était l'occasion de passer aussi donc toutes les toutes ces occasions réunies font que ma présence ici est tout tout à fait normale on est d'accord sur ça maintenant à ce qui à ce qui concerne les élections qui viennent de se passer les populations se sont très bien exprimées à mon égard on espère bien dans l'avenir ne pas les décevoir et essayer au moins de faire le plus que promis. Donc on a un programme hyper réalisable. Donc on compte vraiment euh, appuyer sur les, les priorités pour quand même faire de, des SICAP Liberté au bout de ces cinq ans la meilleure commune au monde. Ça a toujours existé à, à la SICAP et ça va continuer. Et peut-on s'attendre à une collaboration? Tendez-vous la main à vos adversaires? Je les force la main. Je leur force à tous la main de travailler pour cette commune. Et vous verrez très bientôt qu'ils le feront, inchallah. waaw lu normal la lu normal la vu que ni biir Sicap la xewee te Sicap waa Sicap la waa Sicap jox ma seen baat ma doonal leen seen maire donc lu xew waa Sicap lu xew biir Sicap waa Sicap def ko ma teew ci lu normal gisuma si lenn loo xam ni war na doon lu exceptionnel. moo xawoon moo xewoon avant moo xewoon pendant te mooy xew incha allah après it. dama leen di poñe sax dama leen di poñe ndax li ñuy defaral Sicap soxla na ñoom ñëpp ñu dugal si seen loxo loolu moom poñe la à l'endroit de tout le monde képp kuy Sicap waa képp ku fi yeewoo képp koo xam ne Sicap mooy daw si sax si say fen Souleymane Camara maire de Sicap Liberté moo ngi lay ñaan nga ñëw jàpp ci liggéey bi. am nga ndam lan ci bi. ci caravane bi yëpp liggéey jot na nañ liggéey merci jërëjëf.